mbokki internet yi dalee nag jàmm ci revue d'actu ñu dal di koy ak réunion comité d'urgence ou fédération sénégalaise de football niki ki la ko responsable kuréel gogu dal di amal jàppale ni nak jëlé nañ fa ay décision yu ci melni ñu dal di regroupement équipe nationale ba jëmi jamono itam nonu ndaje yi nga xamanté am ci championnat bi itam ay manifestation fédérale yuñ doon waajal lu ci assemblée générale ordinaire bu fédération bi ñu ko amal le 11 avril bi di ñëw daal dinañ ko reporter à une date ultérieure Il décision yu ñu jël bokk na ci euh, dont 10 millions de francs CFA bi nga xam fédération bi daal dina koy jox euh, comité national de lutte contre le coronavirus ngir ñu and kon dal di bobu le jangoro fédération bi di wo bépp acteur football ngir ñu dal di respecter mesures de prévention way itam ñu sëb loxo ci xeex mi. Sadio Mané ci Paris Saint-Germain li ni mel neex na loolu waa Qatar ñoom ñi nga xamante euh, jàpp nañ ni bis bu Neymar jógee Paris Saint-Germain Sadio moom moo ko fa mën a remplacer Leonardo ak Nasser Al Khelaifi nekk ay dirigeant foofu ca Paris Saint-Germain jàpp nañ ni Sadio moom moo mën a wutu kon Neymar ci place bi euh, foofu na am te moo di ca Paris Saint-Germain Neymar mi nga xamante jamono gi FC Barcelone mi ngi def kéem kàttanam ngir daal di koy indiwaat ca biir kër ga jàpp leen ni nag diggante Paris Saint-Germain wala Real Madrid eh, képp koo ramener bëgg na ci Sadio Mané faaw nga daal di ay copar yu bëri bu ñu sukkandikoo ci suñu natago ye nek ci Espagne eh, li nga xamanté modi valeur marchande bu Sadio Mané mi ngi tollu ci 160 millions d'euros eh, Sadio Mané mi nga xamanté ci saison reine bi dugal na lu tollok 18 buts ak 12 passes décisives toutes compétitions confondues Liverpool nak mom dina jéem daal am ay copar yu bëri ci Sadio Mané mi nak mo mën investir ci ki koy wutu fofu

Euh, situation bi dafa daal di compliqué ba bëggul a wax euh, ci lu jëm euh, ci ay détails ndax jàpp na ni problème mu arène internationale bi jamono gi mooy coronavirus sa nekk na lu sérieux ba tax na moom bëggul di wax ci li nga xamante moo di ci wàllum détail muy xamle ni rek ci cartonu borom bi bis bu ñu paree ci virus bi dina ñëw ci ni mu ko mën a waxee ci ay weñ wala yooyu yi nga xamante jamono gi ñoom ñooy matt làmb gi CNG nag mu xamle ni kon dina sóobu bu baax loxoom ci li nga xamante moo di xeexu coronavirus bi. liñ doon ni tey ci wax sa xalaat bi moo doon di laajte internet yi yenn solution yu concrète lañ gis ngir mën a jëlee euh, làmb gi ci guute gi mu nekk ñu bëri daal di koy tàmbale euh, ci CNG bi wax ni kon kii di Alioune Sarr dafee war a jóge daal di bàyyi ku ci mel ni euh, Tyson wala sax Khadim Gadiaga ngir ñu mën a jiite li nga xamante moo di CNG bi ñeneen ñu wax ni mbër yi mag yi itam dañoo war a wàññi li nga xamante moo di seen cachet yi ngir mën a ubbi làmb gi ñeneen wax itam ni lii mag ah, dañu wara war ah, bi ndax nekul ben yoon ñuy am ah, ci saison bi war am ñaar sportif lañ avant tout organisation lamb be yu ni mel yoyep nañ ci wax sa xalaat bi di di ba suba inshallah ci